tiendra hmm. mu des kon ci Amadou Mame Diop ñu fexe ba ñu euh, jox suite ci euh, travaux yi nga xamante ni feeñ na ak te liñ déggoo waaw comparaison ñu jógee fa tas assemblée nationale bi organiser yeneen élection Pula day jaay daqaate Ousmane Sonko daan Pula. Pula ah. googu mu leen woon ak détermination mu leen woon moo tax ñu waxtaanee ko nii ndax bu desoon ci ñoom kese dañ koy patam patamee mu ñëw ñu def la ñuy def. te bu buñ koy def ña ko ñëpp waxee ak ni nga ko xamee keneen ak keneen ak keneen xamee comme benn Sénégal ni nga ko xamee xam nañ ne règlement intérieur bu assemblée nationale boobee nga xam ne ka fi nekkoon PM di Amadou Ba taxaw defee ko fa baaxul. kon déclaration de politique générale ba fa defoon tamit mën nañ ko yóbbu ca ma léegi nag ki fi ñëw ñoom laataa ñuy xool di xam moom ku ci nekk xam ne lu nekk sa biir xel ndaxte fréquenté na ñoom ñëpp tout un chacun ñam fu xam ni moom moo tax ñu falu fa ku ci nekk xam na yaay kan. ña nga xam ne ka fi nekkoon moo leen fa bàyyi itam ku ci nekk xam nga yaay kan xam na sa niveau xam na sa degré bi nga nekkee ba ci président bu assemblée nationale muy Amadou Mame Diop te laataa kenn doon wax moom ci boppam foog naa ne war naa xam règlement intérieur bu assemblée nationale lañ ca def ak lañ ci deful député yi fa nekkoon di balbal di woote point de presse ak di ngand ngandul ñoom ñëpp ku ci nekk lem nga sa gen toog parce que xam nañ ki ñu ko sekkal mooy kan da doon neex rek mu defee ko Grand Théâtre ñu bañ a régler mu defee ko assemblée nationale bi tas te bu ko defoon feneen na nit ñi di ñëwee sax peut-être que du ñu xaj assemblée nationale ndax su wootee nit ñi dañu ko doon xaar déclaration de politique générale te ku ko xam-xam ne moom bu ñu doon wax naan dafay daw déclaration de politique générale pare na ko ndax yàgg na ko liggéey waaw man maa la wax loolu man maa ne la moom pare na déclaration de politique générale li ko tardeel mooy xam nga lan règlement intérieur ba nga xam ne képp ku am fulla nekk premier fa taxaw de politique générale ndax ay tappale la ku koy tere déroulé ku koy tere challenge ko ku ko ca député majorité mais mais c'est un homme de challenge. yow ku la ñëw assemblée nationale yow benn nit di wax ñëpp woon la ginnaaw ñii di tàccoog ñii di ragajoo tey nga am ñoo fal bàyyi leen fa ñu toog. yow nga nag a ñëw. am na ñoom lu ñu téye de ci 100 jours yi ñuy tàmbali. waaw ñoom it am na lu ñu war a wane ci li fi jóge woon. Ah. xanaa mbir mi kon ay wanante la. da ngaa téye ñu téye mi ngi mel ne tey nga tënku ba ma tëkku la nga andi sa mbër ma andi sama mbër. bu ñëwee ci làmb dañoo am ñaata. dëgg ma 100 ak 12 du benn sama 100 boo ko téyee ma téye sa ñaari at boo ma waxee sama benn ma wax la ci benn te kaay ma wax la nag ñoom nekk woon sax seen intérêt boo gisee bokk ci man li ma jàngat xaw ma ndax maag yow ñoo bokk xalaat mais li ma gisoon nekk woon arrangement ñi fi nekk député tey ñu ñëw foofu Ousmane Sonko di fa defee déclaration a am li li mu a wax ak li a feeñ challenge la comme ni nga ko waxee challenge ñëpp nit ku nekk yow da bëgg di challenge dans la symbolique quoi oui ma une assemblée nationale boo xamante ni euh, dafay ñëwaat te xamoon nañ bi ñu fay jógee anam gi ñu fa jógee tey mu war a ñëwaat jàkkaarloog ñoom ci ci ci ci ci doon premier ministre bu Sénégal. dans la symbolique lan lay représenté. xam ñaari aspect mooy xam nga lan. foofu yàlla rek kay buur. Mhm. moom ni mu fa duggee ak na mu fa génnee. ak tey na mu fay dugg si waatee. loolu boo dëgguwul lu naan loo dëgg dëgg a jooy boo dëgguwul doo ko attan. Mhm. pourquoi nos hommes politiques ngoone euh, euh du temps c'est-à-dire te tenir en haleine euh, la population ñuy wax ci DPG on en finir kii naan non duñu ko defee fii kii naan daf ñu manqué de respect. duudu waat dina la ñu nekk ci. duudu euh, waat dina la ñett ci ñoom wala ñeenti buñ tëjoon. ci ñett mhm. ñeenti fan. Mhm. ñu lijjanti ko. waaw loolu gën dañu institution yi dañu nekk ci ay problème euh, problème dina am fii dina jóge fii crise nangam crise pourquoi ils aiment perdre du temps pourquoi mënuñu woon modifier le règlement intérieur ba ñu delloosee le premier ministre comme ça Amadou Ba ba muy def sa déclaration de politique générale mu defee ko ci règlement bu yees. ñoom bañ ko def sax xam nañu ay tappale lañ nekkoon bi Amadou Ba def déclaration de politique ñoom ci seen biir ña ko toog ak ña ko teewee. xam nañ ay tappale lañ nekkoon ndax ku ci mel ni Guy Marius Sagna woon na ko ne fi nga ñëw defee nii règlement intérieur bi baaxul. n'empêche mu ñëw def ko. yaa ngi wax ñu ngi doon wax naan ay institution dafa am crise crise institutionnelle moom ki ko njëkk wax Sénégal mi doon naan dëkk bi dafa am crise institutionnelle ak foog ñu dàq élection yi xam nga ñoom tous les moyens sont ñu mën a jaxase sénégalais yi léegi jéem nañu jaxase Ousmane Sonko ak sénégalais pon leen na gis ngeen ko tàppet la dafa daw ñëwewul ñëw assemblée nationale parce que li ñu téyee ñoom li ñu téyee ñoom lu ñu téye keneen téye na ko yow mii sax tey yow bu benn député assemblée nationale ci député yi nekk foofu yëpp man sañ naa la teg moom yow benn une heure de temps fajal ma ndax amuñu niveau amuñu xam-xam. man de chaise laay ut am na ci nag ñoo xam ne wax dëgg yàlla man respecté naa leen xam na tax respecté naa leen xam nañu lan mooy rôle député <laughs> xam nañu leen yóbbu assemblée nationale xam nañu lan ban taxawaay lañ fa wax a am mhm. mais am na ci ñenn ñoo xam ne li ñuy ñaan yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa ni ko waa ji waxoon mooy ñu jóge ci assemblée nationale ñu indi fa ay nit yu moo xam ne mun nañu resen mën nañu représenter peuple sénégalais parce que ñi fi nekk liggéeyuñu loolu yow lu day ni règlement intérieur assemblée nationale yow ñu yàgg wax ne règlement intérieur bi kat dañu ko violé baaxul yow en tant que député représentant du peuple lan moo waxoon nekk sa taxawaay laata ngay wax ay déclaration de politique générale xam nga mooy xam nga lan jéem a woote groupe parlementaire yi fa nekk na leen kañ toog suñu biir waxtaan parce que lu nekk porte biir nekk am na mhm. neen ah lii kat xam ngeen lii ak lii ak lii ak lii parce moo fi am waaye nañ ko waxtaane ñu jéem a xool nu ñu koy defee waaye yow def wa lii mi ngi nii yàgg mis na ko nag maag moom may ma mu nii man maay sonko loolu am. léegi pare bu ma de 5 <laughs> minutes laa am te dama koy jël. te dama koy jël te ñaata minutes laa wax. sama ñëw moom ci symbolique bi balaa nga daal daal la symbolique la. tey bizarrement dama laa faral. dëgg la fi nga nekk dafa baax jëla diis. waaw léegi ñu ñëwaat ci. Mm. ku ci mel ni Abdou Mbow. moom mooy lan président groupe parlementaire kon euh, lan non euh, président groupe vice président la. kee moo nekkoon yu moo nekkoon président groupe parlementaire bi. woote na fi point de presse ci wax ci ne uh-huh. déclaration de politique générale bi bu ko defee fii de respecté wul assemblée nationale est ce que ñoom ñi ngi respecté assemblée nationale ki ñàkk respecté assemblée nationale man te su ma doon jugé entre Ousmane Sonko ak député yi damay wax député yi la parce que règlement intérieur boo xam ne baaxul ku ci nangu nit ñëw def ko ci yaa règlement intérieur ba yéen a yem képp te règlement intérieur ba tane la ndax yow yaa kon tey ñoom ñoo war a xoolaat seen taxawaay waaye nag c'est trop tard ci ni ñu koy waxee. Hmm. parce ba ñu waree def defuñu. ba ñu waree wax waxu ci waxuñu ci te bu élection amaat nga xam kan mooy kan. kan mooy ñoom war nañu soppiwaat seen taxawaay war nañu xoolaat seen bopp boo gisee nag bi yëpp am hmm. ku ci nekk xam nga li nga tëyee ni ma la koy waxee chaque jour ni may tëjee ci yenn ci maire yi. Hmm. ni ñu xamee ne bii mooy seen last prize. seen hmm. sànni tàccu ñoom noonu la ñu xamee bi mooy nekk seen dernier mandat de député. ci Sénégal ah, am na maire yoo xam euh, ndax mën nañoo xaar ci député yii nii nga xamante ne ginnaaw coow li nag am na. waaw ñu def preuve d'élégance comme dégg nañu jamono jee ñu génn ñu le président Macky Sall wax na leen ñu teg ci suuf loi bi nga xam ne naroon nañu ko proposé euh, ngir le président euh, Diomaye bañ a mënati dissoudre assemblée nationale ndax ci DPG bi mën nañu gis benn élégance ci ñoom ñu déglu le PM problème bañ a am après ñu ñu daal di jublu ci leneen. élégance ci nit lay nekk ak ci deret da nga koy judduwaale. Hmm. élégance du assemblée nationale moo la koy may. certes dina am lenn lu mu def ci yow mais gis nga pour être élégant il faut nga jàng ko judduwaale ko nampaale ko boo taxee wax ñu xam ne kii li muy wax ak élégance la pour yow ñuy nekk ci assemblée nationale di tàccoo ko di waye ko di def ay mbir ak di bu nit waxee ñu sànnante ko jàngee dañ leen ko inculquer dès le ni ñu mel ci seen kër mel ko ci seen ay mbir noonu la ñu yóbbu assemblée nationale moo tax man xaaruma ci ñoom élégance boo siisoo nag siisu nga. soo bañee nag bañ nga. inélégance inélégance. <laughs> dans la symbolique <laughs> Ousmane Sonko mi fa nekkoon député en 2017 <laughs> mu war a delluwaat à l'hémicycle ah diggante 2017 euh, bi mu fa nekkee ak bi muy falu. en 2024 li ci jaar yëpp xam nañ ko mu war a delluwaat ci même assemblée nationale boobu. Mhm. war a jàkkaarloog ñoo xam ne démb ay adversaire lañ ba tey sax ay adversaire dans la symbolique ci yow suñ demoon ba image boobu am on voit le premier ministre ca assemblée nationale jàkkaarloog euh, député yi rawatina ñi nekk ci majorité bi. Mhm. lu mu lay jàngal. Euh, Pape Ousmane. Hmm. ci jamono. ay. Souleymane Faye nee na yàlla yow yaay yàlla le juillet 1789. Mm. il y a eu la prise de la place de la Bastille en France révolution bi nga xam ne française ca la ñu faate guillotiné dagg bopp Louis Capet ah. ñu naan ko Louis jëkkëri Marie